barina ay problèmes yoo xamante ni ay problèmes yu spécifique la maanaam ci enseignement technique da nga koy trouver tey suñu waxee carte professionnelle waa enseignement général suñuy nawle lañ amuñu benn xeex bu ñuy xeex ak ñoom mais seen ministre lijjanti na ba ñoom ñu mun a am seen carte professionnelle mais ñun mënta am suñu nee formation pro diplômante pour ñu permettre la nga am diplôme buy tax ngay def euh, nekk fonctionnaire ñun mënta am bu ñu naan syndicat yi dañuy dajaloo pour waxtaan problème mu jàngale yi. ministre d'am Diop xawma taxawna xawma taxawul do deg mu ngang mu yabbi motax bi nga xamanteni ni ni kat yi nga xamanteni ne ni ñooy sunu naatango enseignement général yaakaar nañ ni seen problème lijjanti nañ ko rek deggoto ci dara parce que d'am Diop mom politique bopam image bopam moko gëna ñor fouf enseignement général euh, moko gëna ñor fouf enseignement technique ci enseignement technique ngay gis so demee CFP de Kaolack muy cas bu jërë cité benn jigéen boo xam ne prof gestion la dafa jang jang jang ba jangal ben élève ba kooku ñëw nekk fonctionnaire mom ñu ne ko fonctionnaire euh, tay ji période coronavirus le ministre de l'Éducation nationale loo ko munti wax dafa joxe ay laisser passer pour permettre aux enseignants de circuler rejoindre son poste Dame Diop yap gum ñu yab min gum ñu min, daf ñu ne gone leen seen bulletin de salaire loolu est ce que Dame Diop war dégager Dame Diop yab gum ñu yab gum ñu min, mooy amul jot sax recevoir ñu Dame Diop yab gum ñu yab gum ñu min motax ñun amuñu gestion de carrière manam do mëna nek fonctionnaire 15 ans motax ñun abri provisoire mu ñuy ray dam job yab gum ñu yab motax day nëbbu poste yi nga xamante ni dañ ko warona xex euh, compétir ko pour am ko mu nommé fa kuko neex té loolu duko ko nak la jël na benn nit ko xamné xaruñut mu nommé ko ties bañu ñu indil ko problème mu dal diko bayyi dam job Diop gum ñu yab min gum ñuy min motax muy jël ay nit ño xamante ne nii amuñ xarañteef bi nommé len ci say CFP yi su ko défé ñu ànd ak loog moom képp kuy bañ ñu jappalé dila troxal dila note dila may ay note administrative yu bon

moom kenn mënut a toog ak moom parce que da ngay demander nga ne dama soxla audience le minimum mooy mu répondre la ne la man kat aw ma jot wala temps yi dinaa la kii mais day noppi un silence méprisant du la faale du la fulaal loolu lay def. am na notation arbitraire parce que nit ku nekk da nga am note administrative parce que dafa am lu ñu naan augmenta euh, avancement par choix. léegi loolu ci say note administrative la léegi su nekkee ne yow ñi nga xamante ne nii ñooy njiit ji Dame Diop ŋànk na leen fa nommé ku ko neex yow soo nee man syndicaliste laa man lii laa muy xool loolu au lieu mu ci sa liggéey. mais dalay note ci sa euh, li ngay yëngu man mi benn laa ci mu ko jooy parce que man dama gëm na note administrative mënu maa yóbbu fu ma war a dem mais tey jii dañ lay jàpp di la xeex dañ la naan yaa mën ne téye classe examen yi déjà man dañ ma ne classe examen yi yow lañ ci ba pare ñu jox la classe examen yi ba pare na la jàngale woo lu baax di la may note bu bon école tëjiwaat ñu ne la téyel ma classe examen yi loolu mooy lan c'est paradoxal ay jigéen ñoo xamante ne ak ay góor ñoo xamante ne Dame moo leen teg ci système bi ñu ñëw ñu poñe ñu nañu du ngeen nooyu comme que poñe poñe dong la te poñe bu yàgg de indi dee ñun ñu génn deeyal suñu bopp pour jàkkaarloo ak Dame Diop moo tax Dame Diop rapport de force lañ koy woo